j'ai l'impression que yaa ngi sous-estimé non, je, je les parlant de Ousmane que, qui n'est pas aujourd'hui dans les conditions de participer pour le moment. Pour, il n'est pas dans les conditions de, participer mais la il n'est pas inscrit sur les listes et il n'a pas de fiche de parrainage. donc mais loolu waaw mais la. à l' est ce que c' est une situation aussi <laughs> nekk ci je veux dire c' pas ça ah, le point. bi ce ce ce euh, est-ce que c'est une situation juridiquement ah, euh, régulière, juridiquement acceptable euh, La preuve que c'est juridiquement acceptable, c'est que c'est la réalité juridique aujourd'hui. Il n'est pas sur les listes électorales, il n'a pas de fiche de parrainage. Donc, euh, Et bon. qu que, que faites-vous du verdict du juge euh, Sabassé du, du président de grande instance. vraiment man xam nga loolu concerné Ziguinchor. man je euh, suis pas je suis pas l'avocat de l'État non vous êtes un homme politique non mais je veux dire dafa dafa non euh, mën naa ci commenter. Ah. mën naa ci commenter quoique nag c'est pas une bonne habitude c'est des c'est des hommes politiques responsables que de d'affaiblir moi j'aime pas ce genre de débat d'affaiblir euh, la justice ou euh, ou les juges je les respecte. waaye dañuy dem ci procédure yi euh, ba mu jeex le juge Sabali yoo xaw ma nu mu tudd. Sabasi Sabasi Faye dafa jugé. defe naa nit ñi am nañ droit def yeneen recours nit ñaa ngi koy def. def eh, nañu recours justice bi mu ngi ci. def nañ non loolu amul problème mais man moom du ma fi nekk di critiquer benn juge euh, parce que suma dépassé na la. non léegi nag moom jugé na. nit ñi am nañ droit def recours nit ñi def nañ recours la situation aujourd'hui c'est que le bonhomme il n'est pas candidat. parce que il n'est pas sur les listes électorales il n'a pas de fiche de parrainage maintenant je crois que yeneen question yi nga wax beaucoup plus non xaaral xaaral def nañu recours hmm. la Cour suprême va trancher hmm. euh, ñu ne DGE ses avocats ne DGE na ko dugal ses avocats euh, DGE euh. bañ ses avocats attaqué la DGE en référé Cour suprême euh, en faveur de la de la DGE Sénat autorité de régulation génn mu ne dañ ko jox joxe injection mu ne nañ ko dugal ñu dàq waa Sénat ñu dàq Doudou Ndir et toute sa bande. Mhm. Euh, incursion boobu aussi l'opposition devrait applaudir parce que opposition yàgg nañu demal ñu dàq. d'accord mais pour ñu dàq ko ci condition yooyu. waaw ah, ma ne l'opposition euh, en tout cas dàquñu ko parce que son mandat. jeex na mais ñu ko parce que mandat bi yàgg naa jeex ñu ne ñu ne na fi jóge ngeen maintenir ko fi. Mhm. ah mu ne léegi mu ne mu joxe eh, une décision <laughs> c'est pas euh, c'est rigoureux qui ne nous est pas favorable mhm. ñu xëy on le on le dégomme lui et toute sa et et, et, et toute son et toute son équipe. Mmh. et puis des des des des experts électoraux disent que c'est c'est c'est c'est pas c'est c'est légal. xam nga nous on est très à l'aise pour wax ci affaire justice parce que mosuñu am démarche pour remettre en question la crédibilité sunu justice mosul am. au contraire suñu adversaire yi ñoom ñoo fi taxaw ni du ñu répondre justice ñoom fi taxaw ni juges yi ils sont vendus ils sont pas indépendants ñun mosuñu wax loolu su fekkoon ne ñun yéen yéen xas ngeen saba si fay xas ngeen le juge yi xam kayta non non non des gens yi des gens de votre majorité quand yi xam kayta a donné sa sentence ñu il est de Pastef saba si fay non du réseaux ban ban sociaux ban ma ne de au reste ah l'agent judiciaire de l'État il a posé des actes illégaux mais l'agent judiciaire de l'État c'est l'agent de l'État euh, oui mais il de l'État nan la justice c'est pas la la justice di récuser ses propres hommes agent judiciaire de l'État nga taxaw ñu un juge joxe un verdict nga ne le verdict il est teinté de familiarité le frère de de de juge euh, est officier à la mairie de Sud et donc on doute de sa probité mais fii juge démissionné na fi bàyyi dossier parce que nañ ko. mais si on lui a reproché agence judiciaire de l' état bu défendrul état lan mooy njëriñam. agence judiciaire de l' état mooy état bi bu toppee nit ci dara mais moom dafa war a topp cas bi ba mu sës su ko toppul lan mooy njëriñam. d' accord donc loolu amul débat mais un acte de récusation sur des motifs. Euh, aussi légers mais récusation dafa bokk ci ay euh, procédures. waaw d' accord mais mais mais récusation dafa am. fu ñu ko war a teg lépp luñ fi def. c'est dans le cadre du fonctionnement normal des institutions judiciaires et des des procédures amul fi lenn loo xamante ni dañu juge dafa décider dara ñu forcer ko loxo changer décision am loolu xam nga mosuñ ko def. mais dàqu waa bi tamit quand même c'est. non mais yooyu wax ne leen. seen ne. yaa dàquñu leen que seen mandat dafa jeex. parce que mandat bi yàgg naa jeex. Mm. d'ailleurs du moom Sénat rek même le euh, directeur général de l'ARMP. Mm. mandat bi jeex na depuis cinq ans ñu maintenir ko on comprend pas pourquoi. mais et puis c'est quoi le ñu xaar ba mu jël une décision. ñu balayee ko. mais on n'a pas dit qu'on annule c'est quand décision Sénat bi c'est une décision de la Sénat. waaw où ah. est le problème. mais mais c'est quand même suspicieux. Sénat Sénat la ba léegi. d'accord mais lan moo suspicieux ce moment-là xam nga lan moo doon xam nga lan moo doon ah. li fi am amaat fi. c'est-à-dire que nit ñi dem bay jël décision ñu woo leen di leen xoqatal ne du ngeen fi jëlee décision bi loolu la fi opposition bi dëkkee. te je crois que ay institution comme Sénat wala benn juge jël décision bu contraire ak les intérêts de l'État ou les intérêts de l'APR c'est la preuve suffisante que sunu justice dafa indépendante mais sinon duñ jël benn décision bu mel noonu. ah mais dañ ko dàq quand même. waaw kenn dàq ko mandaam dafa jeex yow yaa ko. ba pare non jeex na bu yàgg. waaw ñu ne leen dàq leen. ko ngeen bon je mais en tout cas moi ma conviction mooy que le fait même que am institution bu mun a jóg. jël décision bu contraire aux intérêts de l'État ou aux intérêts de l'APR c'est la preuve suffisante qu'on euh, des institutions solides et indépendantes. alors on attend le verdict de la Cour suprême. Mhm. Euh, ndax dina wax ñu réintégrer Ousmane Sonko dans les listes électorales.